nuyu naa la ziar naa la nuyu naa internet yu suivre Leewtoo TV Talla ñu ngi parcelle tey fii ñu nekk nag taxaw nii defe naa ci buntu mairie parcelle bi lañ ne am na lu fi xew groupe baax noo violence ñi nga xam ne dañoo bokk ci lamb di xeex violence ay at lu bëgg a mat dix ans ñoom nag ñoo fi woote tey ndogu Talla Ndiaye ma bokk ci groupe ba nag secrétaire général bi sama bopp mu la gënal Talla Ndiaye du bañ naa la ñële ngay seen defe naa ñooy waa groupe baax kaay ñu dem tey ndogu lu fii la. damaa xamul nag ba xam ndax ginaar am na fi wala lu fi am Talla kaay jam sax pour ma wax la rek groupe baax am na ay promoteur jam. gis nga kii. Babacar non da ngay taxaw. Hmm. élément group baax la. Babacar mi élément groupe baax la. mën nga bàyyi ma toog rek. mais mais lu ngeen di def fii tey. waaw tey gis nga rek avant tout dañ sant yàlla di Seydina Mohamed di sant Sénégal gi yëpp di wax ne waa groupe baax tey ñooñu woo ñun sax si lañ bokk. ñu woo ñu woo sénégalais yi woo axlu làmb pour def lu baax def lu baax mooy lan gor woor jullit woor nit ku baax woor ba ngoon jot nga yëkkati jox ko pour mu ndogu loolu rek ak sant la te lii lépp si làmb la làmb ko waral moo tax ñu ngi leen si remercier bu baax a baax a baax di leen ñaanal initiative bi yàlla na gën a jëm kanam suñu borom dee ni gën a doole dee ni gën a kàttanal ba lépp luñ si mébét rek xam nga yàlla di si teg loxo. olof dana xeru sëb sàkket da cay daru taala Ndiaye biram bëgg naa la. Babacar ñu ngi lay bëgg <laughs> si jàmm waaw ñu nuyu waaw ñu nuyu ñëpp defoon nañ ko daaw def ko daawaati jéeg mm, kon ren moom dañuy baaxanteel rek ñaan yàlla vraiment jàmm yàgg rek yàlla na fi jàmm yàgg. nga làng ak sa séeri. waaw lu dul jàmm daal jàmm ko gën Babacar yaa ma gën a xam. lu dul jàmm jàmm ko. waaw Leewtoo waaw ne Thialis nañ ñëw ñu bokk ci ndogu bi waaw waa baax. calis na ñëw jàpp kon calis bi jay na ma daal blanc maa ngi lay bëggee waa Babacar naa la bu baax maa ngi lay fay ci loo nekk sant suñu borom waa gis nga tey daal nii lañ def suñu góor ñi waa groupe baax rek jëm kanam jay na boobu groupe baax jay na boobu sax Fass defe naa waa Fass ay sa mbër wala waa waa écurie Fass waa sest yi yéen en tant que jigéen ngeen di nekk ak ay góor lu lu lu mu leen di def waa am ci ñoom kontaan rek parce que ñoom dañoo jóg di xeex loo xamante ne ni mooy non violence te bu ñu ko gisee dañuy sawar ci ñoom ndax léegi Sénégal bi dafa bëri violence yaa ma gën a xam waaw dañoo bëgg mu deñ Sénégal jeex fi tàkk moo tax bu ñu gisee koo xam ne nag da ciy taxaw nañuy kontaan ci moom di leen jàppale ah. coro tey ngaa taxaw ngay aller retour di reetaan ni wala dangaa ragal di ñammi ñammi lu xew dara xewul kontaan rek mm. mm-hmm. xam nga groupe baax wootee nga wuy si leen tam dafa neex wax dëgg yàlla tamit initiative bu nice tamit moom la ñuy def parce que lii yombul ba pare ak comme ni ko na ba waxee rek euh, li ñuy xeex nii tamit maanaam ñëpp dañ leen see war a fekk si daal wax dëgg yàlla daal kontaan nañ kontaan nañ si groupe baax di leen ñaanal ci kaw si kanam ci lu baax. taal lu jigéen bokkul du neex kii mooy Mami Ndiaye Mami Ndiaye macha allah moom xool fa mu takk sentir ba taala Massamba Dieye daal xaw ma moom itam sa groupe bi rax na léegi de mami te bàyyi woon ko te man maay secrétaire groupe. mais maa ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di leen wax ne leen ni groupe baax moom. mi ngi nii daal group baax a ngi nii dañuy ñaan yàlla rek mu yokku jëm ca kaw ca kanam macha allah xale yi jigéen yi bokk nañ ndey bokk nañ baay xale yu góor yi bokk nañ ndey bokk nañ baay groupe baax daal zéro faute te bu reer bi ñëwee di ngeen xam ni tubaar fa kàlla macha allah ñun suñu groupe bi mi ngi yokk wàññeekuwul dafay yokk di law ba faaw di jëm ci kanam parce que ñun ñëpp baax te àdduna moom lu waay di def te xol yi rafetul rek du ànd te ñun suñu xol yi dafa rafet dañoo bokk ndey bokk baay xool ngeen ñu ñoo ngi nii def yaañ def fashion def jongama gis ngeen ñu ni waaye Talla fës na neex waaw jaayu defal lu la neex defileel du mën a ñàkk yaa tey waaw waaw tas sa nu la neex defe ko Talla Ndiaye man lii laa. kaa leen koy jox man duma ci lu bari. lii kon nag mbokk yi xam nga li ngeen gis rek dèjà gis ngeen ndogu bi gis ngeen ginaar yi gis ngeen yeneen bagages yi groupe baax nag moo ngi nii comme li ñuy wax rek lu dul jàmm jàmm ko gën fa muy jógee du fa jeex mais fa mu jëm du fa doy lool la ñuy wax yàlla nañ ko yàlla defal barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaa yaa ngi nii taxaw Modou Seck jóge Thiès grand Modou Bey Massamba président Badara Khadim ak Lamine Luqu njur bi ñëpp a ngi taxaw <laughs> di lii nag dafa neex def ko nii Grand Seck ci caméra bi gis nga lii Marie Pierre Ndiaye moo ko joxe ambassadrice nekk ca Thiès bi la Marie Pierre joxe du. bii la joxe moom lu mu jëlee ci Thiès Marie Pierre Ndiaye. Euh, Marie Pierre Ndiaye présentant du ministère de sports moo moo fi représenté monsieur Matar Ba Euh, muy inspectrice régionale des sports mooy kilifa gi nga xam ne moo jiite lépp lu jëm ci mbirum sport ci Thiès moom moo ko jël lii ci kontante ak mbégte bu mu am ci groupe baax ni muy doxee ci xeex lu violence mu yëkkati ko jox leen ko mu dina signature moo nekk nii ci suuf euh, ñun ñoo ko signé donc muy wax ni groupe baax daal kontaan na ci ñoom ci activités yi nga xam ne ñu ngi koy def yëpp moom kontaan na ci ñoom ba moo tax mu yëkkati ko euh, jox ko ki nga xam ne mooy groupe baax waaye teg ko ci loxo président président tamit delloo ko ñi nga xam ne ñooy Xaadim Balla delloo ko euh, Sora Malick delloo ko ñi nga xam ne ñooy groupe baax yëpp buñ ko limee rek du ñu bàyyi kenn ñoom la ko dell ñoom la ko delloo moo ne beneen bi ci des kan moo ko joxe ba tey. Euh, Babacar ñu xam ko ci muy ambassadeur de la paix au Sénégal mu jël lii tamit. delloo ko groupe baax ci nommé tamit ay ambassadeur ci département de Thiès ci li nga xam ne moom la ñu liggéey muy xeex lépp lu jëm ci jàmm te moom loolu moo tax mu mu taxaw mu jël ko jox ñu ko ñu delloo ko tamit groupe baax mooy ñaari mbégteeg ñaar li nga xam ne daal ñun moom la ñu ñëw ànd ak président Pape Mbaye waaye ànd ak waa Thiès yëpp ngir ñëw jox ko groupe baax ñu gën a góorgóorlu gën a xamaan ne liggéey amaan na lii nag liggéey bi yemul fi waaye monsieur le ministre Matar Ba bind na lettre adressé ko ko ci groupe baax ci mbégte mi ma am ci ñoom loolu moo moo doon kàddu rendre beneen acca ñu joxeel xaadim xaadim nag mooy trésorier général groupe bi xaadim Balla Gaye parce que loolu lañ gën a xam mais moom xaadimu Sénégal la xaarim bu groupe baax. kon xaarim bu groupe waaw. ah après waa xaaral après buñ paree nga jox boobu Badara ñu ñëw xaadim lii ñu leen jox tey ci turu président bi ci xeex violence maanaam xeex jàmm yoon yu guddoon lool ñu dem ba tey nag ñu reconnaître leen sax au niveau national loo siy wax. di ko am kontaan rek ci lii ndax maanaam comme groupe baax li nga koy waxee rek lu jàmm jàmm ko gën fa muy jógee dafa jeex fa muy jëm dafa doy lépp jàmm ko waral ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di gën a kontaan rek ñu gën a góorgóorlu rek nga xam ne leneen mi ngi ñëw suñu kanam. waa di jaajëfal waa groupe baax yëpp di wax mention spéciale ku lim juum di ñaan suñu ànd bi yàlla na ko yàlla gën a dëgëral te yàlla gën ñoo jëmale kanam ba lépp lu ñu bëgg song rek yàlla na ko yàlla sottal kenn bañ a képp soxla bu fi indi yàlla na ko yàlla saafara ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi Badara. waaw nga xam ne de ambassadeur de la paix. Babacar Diakhaté moo ko jox groupe baax. moo ko jox groupe baax Babacar mbay euh, vraiment muy loo xam ne li mbégte la ak ñu jox ko sunu Baye Fall muy Baye Fallu groupe baax muy ba monsieur Badara ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi waaw loolu la ñu ñëwoon Babacar jërëjëf. Euh, léegi kon Babacar boobu tam mu koy sama turandoo ndax Babacar yi ñoo mel noonu Badara looy wax ci lu mel diplôme bu mel ni ñu jox leen ko si turu groupe baax. waaw di nuyuwaat mbooloo mi yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di baalu ñëpp àq di baal ñëpp ak si weeru koor gi nekk nii di santaat yàlla bu baax ndax lii ñaax la mm, ñaax gi mooy lii eh, Thiès la jóge représentant kii fédération Sénégal de football moo ko joxe te y a quatorze kon donc war ngeen fexe élargir ba quatorze régions yëpp ngeen mën faa am diplôme yu mel nii kon wërta mën a yem ci dakaar Thiès kese kon liggéey bi des na liggéey bi des na mooy am ngeen ñu leen toogal am na yeneen région yi fi nekk ngeen war saa mën a góor góorgóorluwaat ba am yeneen ñu leen mën a toogalaat foofa di santaal yàlla bu baax nag di gërëm tamit si diplôme bi macha allah ak teraanga jeeg yëpp di dolluwaat di baaluwaat ñëpp ak te di baal ñëpp ak te wax ni daal liggéey bi day mel ni da ngeen soog a commencé ndax lii yéen a ngi koy soog a jot kon nag li des yaakaar naa moo ëpp li ngeen rombagul di ñaan yàlla lépp rek oyof barke maam Cheikh Ibrahima Fall merci. prési léegi yow yaay tëj débat bi looy looy looy kaay nii léegi lan ngay wax en tant que président jiite mbir muy dox des fois mu ay yëngu des fois mu kiiwaat ba tey ay nit yu nekk ci ay raison di reconnaître li ba di ci def li lan ngay wax ci lu mel ni tey. waaw xam nga alxuraan moo ñu waa njëkk a wax ni iza zulzilatil ard zilzalaha wa axrajatul ard asxalaha yàlla sax dafa programmer def ay yëngu-yëngu yoo xamante ni dafay lem suuf te yenn saa yi sax mu def tremblement de terre yow yenn saa yi nga tisóoli yëg ne sa ruux gi yëngu na yenn saa yi nga daw yi def sport yëngal sa yaram loolu mooy mouvement wu àdduna parce que la terre est ronde elle tourne autour de nous yàlla lépp lu mu bind foog mu di ko yëngal donc groupe baax buy def ay yëngu-yëngu logiquement dafa war a am mais alhamdulilah parce que euh, ay nit ñu rafet xalaat ñoo ci nekk ay nit yoo xam ni ñu modeste ñoo fi nekk parce que kenn ku ci nekk mën nga dem sans sa morom en toute franchise mais tamit boo ñëwaatee comprendre Massamba ci jikkoom comprendre Massamba ci ndofeem walla ci jéey euh, laa sant nag ma Massamba jéey euh, géeñ bambulaan mooy sama maam yetu xaalis waak jaas fi tagg sa bopp waxal ci lii euh, yetu xaalis waak jaas ji mu ngi suñu kër bu sama papa deewoon tey man maa koy donn donc loolu foog ngeen comprendre ma ko doonut fooy donn da ngay so donn njaay ni wala faale ni waaw pour wax la ne la waa Thiès vraiment lii ñoom ñoo ko moom xam naa danaa leen ko yóbbulaat parce que itam ñoom seen moo tax ñun ñu jot lii donc ñoom dañoo baax rek ak di ñu sagal mais la ñuy def kii wax na sànq di ma gërëm nga poroog tiwaawoon mais la fay am mënu ma faa ñàkk dem baax <laughs> la fay am ci ay brochette ki ginaar mënul ñàkk dañoo dañoo mën bés tarkalla donc ñu sant waa groupe baax ñu sant waa groupe baax euh, euh, sant Abdou Laat animu Laat Seen euh, moom mooy gërëm li des ndax euh, waa diaspora bi moom lañ doon waxal ah, euh, moom mooy taxaw donc mooy gërëm man daal ñii laay gërëm samay xarit nga xam ne su dul woon ñoom saalig naa yàgg na parce que man de nature ni laa mel sama rakk la euh, Assane moom daanaka étudiant la. keneen ki mi ngi ca kër ga El Hadj moom avocat la mais kii laa gën a sonal parce que kii moo gën a nekk sama xarit moom fu ma nekk mi gis nga El Hadj moom dafa tayal mi ngi kër ga di nelaw di gërëm ñëpp rek Xaadim Badara Sora waa groupe baax booy plaignant plaignant yi waa Faramareen yi am na groupe Faramareen defe naa yow yaay président bi nga ful la <laughs> donc sant ñëpp gërëm ñëpp Ibou Fall moo ñu jox mburu mi yëpp ak euh, keeg yi booy rëbës booy yàlla na ko yàlla defal jàmm lafal ko cat gërëm ñëpp jégalu caméraman bi sànq xawtun ma dóor ko mais dañ doon waxtaan rek c'est euh, notre train. ala Baye Fall. yenn saa yi il faut ngeen dem fenn ñu bundu xataal leen loolu c'est très normal moo ko bee ànd. waaw mais sant daal alhamdulilah kon ñu dem ci reer yi jégalu waa Thiès xam naa seen émission bi euh, kii na laat mooy eggale sant jigéen ñi bu baax nag sant ko moom itam ak euh, groupe Playboy yëpp. looy taw nii mel ni ku ragal caméra bi léegi looy yow ñooy gërëm ak ñooy sant yaay mujj wax ji. waaw salaamaaleykum. ñu ngi nuyu membre groupe baax yëpp di jaajëfal képp ku fi teew rek di ko njëkkee sunu mag sunu ndijaay sunu papa père Modou ak grand Pambay ak grand Mour di leen jaajëfal bu baax a baax ñoom kees lañ ju kees lañ jugee te am naa yaakaar fa la ñuy fanaan le temps mi ngi bëgg guddi kon ñu ngi leen sant bu baax a baax ci turu groupe baax nag moom dañuy sant rek dañuy sant bu baax a baax ndax sant rek. ñëpp ñu la jàppale daal si waaw ki jàpp képp ku jàpp si gi daal. laat bu armée xatu yaay mi ngi lay sant bu baax a baax di wax ñun combat groupe baax rek mooy suñu combat soo xoolee ba mu duggee groupe ba léegi sama mbër bëriwul muy armée kon man làmb baay moo fi li mu fi bàyyi mooy jàppalante dimbalante ndax ñun loolu mu ngi ñëpp solo ndax man Baye Fall laa waaw sur Cheikh Fall mooy sama wasila aw mooy yéene loolu rek fépp fu ay di daje rek ñu fexe ba lépp taaru ba lépp jaar yoon di sant bu baax prix ndax c'est pas quoi xanaa a ko jox yére Baye Fall bi. waaw du mën a ñàkk te fii la a génn waaw moom xaalis ma ko jox parce que li yóbbu la xam naa groupe bi li fépp ñoo mag te sama njàng soriwul jàngu sax français mais confiance la a ci ma rek lépp nag ñu koy sant bu baax di sant suñu mag Soro Malick maam Khadim di sant ngi si jàpp ñëpp di sand bu baax a baax tamit waa diaspora bi ku si mel ne alaay subir ñaan nekk magulaay ñaan kooku wax dëgg yàlla da ciy sant bu baax a baax di sant Aliou bu Efra ak Mansour bu Efra ak Alaaji Baara Seydou depuis Côte d'Ivoire ñooñu wallaahi bu dul lii dong lu groupe baax xew la nag dañuy gis seen ñax di si def man xam naa ci dara kon ñooñu ñu leen di sant dëgg la nekkuñu fi mais seen poche seen xaalis musul wute programme groupe baax kon jàppale ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di sant jigéenu groupe baax bu baax a baax di si gisee seen mag seen tante Soxna Mbaye ak Marème sama xuloo waale ñoom Dieynaba ñoom Coro ñu am mbégte daal si waa groupe yëpp di siyaar bu baax ñoom Baye Mor maam ñu ngi koy siyaar bu baax gis nañ yéene Babacar yow ñu ngi sant bu baax a baax wallaahi indi nga sa caméra ba pare yëkkati xaalis yu bëri jox ma di sant bu baax grand Sourou Fall ah ba ñu waxee ndax moom mooy njëkk a yëkkati joxe kon kooku day baax ñu sant ko te te moom mënoon na ne kilifa la ci kër gi rek modèle la fi nekkee kon jërul mu joxe mais mooy njëkk yëkkati ne maa barke wala lii di ñaaral nag suñu mbokk yi xaw a tawat ku si mel ne maam ñaaw joxe na participation bu war ñëw su mboolem def fan yëpp mu entré bañ camal koy bideel ñu koy ñaaral mu tane di nuyu suñu yaay Aliou Diouf ak waa groupe baax yëpp di sant sama mafia bi nag play boy ah waaw mafia bi faramaare ni di leen wax après côté day dóor ah <laughs> kon Talla Ndiaye noonu la deme woon groupe baax ngi nii mbay mi ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq di wax ne Lamine ñaan Lamine bu fas bërigo Lamine Diallo këriñ maa ngi koy nuyu <laughs> di ko ziar mais Talla Ndiaye Talla xoolal lii ama gis nga ñaw bi Rimka Couture borom Touba Sandaga moo may solol di ma ñawal di nuyu Elas bu Jéen borom Senova Couture di nuyu tër yi baaba kër yëpp maam Cheikh borom Daaru Salaam ak maam seex bu wulli de maa ngi koy bëggee di bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne xol bu sedd yaram mu sedd taala Ndiaye Serigne Lebu Ndiaye Serigne Lebu Ndoy ne newoon si caméra bi Talla.